mbokk ñu ngi leen di nuyu di amaan mbégte di leen dalal ci magazine bi nga xam ne ñu ngi leen koy indil euh, samedi bu jot léegi di ci topp rek plan Orsec xam ngeen ne plan Orsec ñu ngi ko déclenché woon euh, ñeenti fan ci weeru août boobaak léegi nag euh, ñu ngi koy topp ci suñu émission bi bii di ñetteelu rek émission bi nga xam ne ñu ngi ko jagleel plan Orsec tey ñi ñuy dalal ci émission bi mooy ki nga xam ne moom mooy docteur Ousmane Ndiaye nek directeur exploitation bu ANASIM météo donc monsieur Ndiaye ngi lay nuyu bu dalal. ñu ngi lay aram mhm. colonel Ange Michel Diatta sapeur pompier mi émission bi rek invité fixe colonel ñu ngi lay nuyu bu baax. ngi aram toujours pour man ma téléspectateurs yi di remercier invitation di jaajëfal également docteur Ndiaye euh, bu Anassim xam na ñoo bokk plateau bi tay mhm. euh, colonel Ange Michel Diatta mom moy euh, chef chaîne emploi ak opération bu sapeur pompier kon ñu koy gërëm bu baax ci teewaay bi colonel sax mom lay tambalé waxtan wi ndax colonel wax nañ ko plan Orsec ñu ko déclencher won daanaka bi wéru ut bi rek teroo gannaaw taw yu takku yi fi amoon fii Ndakaaru. Euh, dinañ ñëwaat nag nu mu gën a yaatoo ci taw yi nga xam ne taw na ko biir réew mi mhm. waaye tey buñ doon ñëwaat rek ci bilan bi gannaaw euh, lu mat ñetti semaine bañ ko déclenché ak léegi euh, fan la ndox mi toll biir Ndakaaru waaw donc wax nga ko ñetti semaine ngi nii depuis buñ déclenché plan Orsec bi donc mën nañ def benn bilan de manière globale pas seulement dakaru parce que inondation yi Sénégal bi yépp le le concerné et ça peut pompiers quasiment partout dans notamment quasiment département l'écrasante majorité des départements euh, du Sénégal globalement ci lu pompé euh, millions de mètres cubes donc précisément jusqu'à ce matin 4 euh, millions 785 mètres cubes depuis que ba ouvrir 987 sites 687 sites, city y presque une centaine de gens qui ñoo ngi foofu di pomper présentement am également quasiment <clears throat> un peu moins de 80 yo qui ont libéré nañ c'est-à-dire que ndox boobu ba léegi de seegul foofu quand même ay sites en attente euh, un peu moins d'une douzaine de euh, sites yooyu yu bëri yu bëri ay euh, problème déversoir notamment ci secteur yu mel ni soo Dakar ay secteur côté euh, cité université, Sir, cité Sajef, Sagef ak un peu ci côté Bambilor bi noonu globalement. Euh, studio yi nga xam ne dañoo am problème mu déversoir comme ni nga ko waxee. Mhm. Euh, bu ngeen defee liggéey bi ci war. da mhm. ngeen di def ay recommandations. waaw généralement recommandations mais yooyu ñoo ngi ci liggéey c'est vrai que day xaw compliqué suñu jógee parce que mercredi bi passé bu ñu jógee ci tournée mi dara.

ñu ko waa DPGI mën def ay canalisation ñuy enterrer ay PVC lool c'est toujours provisoire def ay PVC mais lool rek mo leen mën a ci ndox mi sinon ay kilomètres kilomètres kilomètres là et puis peut-être songer à def ay relais moy indi ndox mi euh, jëlé ndox mi fofu yóbbu ko ci benen place tegaat fa benen pompe jëlaat ndox boobu wat ko pour mën quand même assurer mais yooyu pour nga am problème fooy déverser même de prime abord ndox mi moy relais bobu problème la mais ñong ci ciy liggéey sur

ñu war a xalaat population yeeg décideurs yeeg ñëpp que dañu war a am ay solutions yoo xam solution permanente la ni structurante pour mën lutter nit ñi aussi patient xam vraiment lo xam ne da say daaw am muy changement climatique da day gën ñëw chaque femme motax euh, tendance yi def ñu def di aussi yee population yu baax baax ñu préparer bu baax xamni li lo xamni la chaque fois am nañu ay chance chaque année muy ñëw en tout cas di ñu arriver ndax euh, lo xamni la d'accord nañ ci comité scientifique ba xamni vraiment day gëna a fréquence dañuy gëna augmenter et intensité aussi di gëna augmenter. Euh, Dakar gis nañ defani euh, xawna dalandi. Mm-hmm. ba kañ waaw yaakaar nañ ni euh, semaine bii di ñëw lundi peut-être euh, mardi la ñuy xaar xalaat taw lundi ci guddi jëm mardi ci suba ak beneen événement boo gën a takku la ñuy xaar entre jeudi vendredi. c'est vrai que Dakar recevoir nañ ay pluies yoo xam sont exceptionnelles n'est-ce pas le 15 defe naa le 19 août la ñuy recevoir le 5 d'ailleurs dañ commencé woon ak le 19 août la ñuy recevoir précipitation exceptionnelle et du Dakar rek ah parce que comme ni ko <laughs> war na waxee y a Saint-Louis aussi. ñu ngi ciy euh, ñëwaat ni mu gën a yaatoo sax ñu gën a yaatoo voilà. donc pour les prévisions pour le moment la semaine prochaine daal loolu la ñuy yaakaar lundi mardi ak aussi surtout jeudi vendredi. Mhm. jeudi vendredi kon mi ngi non ay prévision ANACIM batay. alors colonel ñu ngi doon waxtaanee sànq wàllum déversoir ci yenn gox yi. Mhm. Euh, tay gox yi nga xamné ne ñoo leen gën a problème yan la fi ci Dakar. Wa fi ci Dakar comme je dis amnistie yu bees yu bari parce que ngeen xamné euh Kër Massar la woon Kër Massar la gis ngeen ko bu mu tawé ñëw nañ ci centre ville bi côté centre ville bi après nous watch euh, principalement ci quadrilatère euh, mooy Parc de Hann Centrale de Bel Air euh, Cité Bellevue ak zone de captage mais également am cité yu yo yoo xam ne inondation hmm. c'est-à-dire que comme je dis phénomène bi day déplacé Il ay xur ay ay ancien lac la comme sécheresse de Dakar demone tawul won wawna ak dëkkuwaay bi niñ ki dañ ko yittee biir Dakar nous ñi installé wu logements, qui logement cité yu yi quasiment de Bambilor en passant par Kounoun. donc secteur Bob, yëpp cité les inondation il fallait lay en fait am na secteur aussi ay par exemple Ndar ku xam Ndar bu baax euh, quartier dafa dem ba entre quartier bi ak euh, soo demee xor également ñun ñu yag ndar xam fofu euh, xam nañ à peu près que période bobu à l'époque kenn dëkk foon mais léegi santiane bi dem na ba euh, fofu nit ñi dañ fa dëkk et daru lu koy séparer ak quasiment ndox mu nekk fofu c'est ben dig rek mo leen séparer donc dañuy pomper juste quelques mètres lañuy sandiat et c'est la même nappe donc mm. forcément c'est un éternel recommencement parce que les gens sortent fii même su sur soo ils ont fait qu'il faut faire. et ils sont quand même dans cette population bi qu'il faut faire. donc il y a eu aspect ñoo a koy jël en compte Touba également eu une problématique Touba avec remontée nappe phréatique avec avec problème de versoir humain donc a aussi préoccupation là, et Magal donc ça peut on ci en compte autorités en compte quasiment euh, comité national développement euh, une grosse partie en fait problématique boobu la ñu soulevé woon. Euh, docteur Ndiaye. Euh, hmm. colonel dégg nañ ko. tudd hmm. Saint-Louis tuduna Touba. Hmm. muy ay gox yo xamné tawna tawna lol sax fan yi ñu génn. ndax ci sen prévision ba tey la fa wàcc dan na fa wàcc. wala ba tey ci phénomène yu exceptionnel yi la. oui boy xol phénomène exceptionnel bu ñu plus Dakar bi ñu amone le 5 août avec 131,2 moy taw bi nga xam bu ñu tok compter taw yi ñu amoon 1951 ba suñu jonni tay boo xoolee mooy juróom-benneel taw bi gën a fort c'est-à-dire juróomi taw rek ñoo ko gën a fort xam nga loolu exceptionnel la mm-hmm. boo xoolee 1950 ba léegi nga xool jour yëpp benn par benn nga xool mm-hmm. at bu nekk nga compté jour yëpp mm-hmm. donc loolu donc mooy wane ni c'est une pluie exceptionnelle Touba aussi c'est la même chose on a eu 130 euh, millimètres le 19 août ce qui est beaucoup vraiment 130 millimètres beaucoup première inondation bu ko fàtte le 27 la woon ak Taïba Niassène bi amoon aussi 127 millimètres boo xam mosuñu ko woon yaakaar donc mooy loolu donc depuis le 9 mai bi ñu commencé c'est vrai que amoon nañ ay répit mais bu commencer commencé dafa commencé vraiment ay précipitations exceptionnelles mhm. vraiment taw yoo xam ni day nekk taw eu dégg jalo ensuite di nekk ci période bu très courte surtout là là quoi boo gisee Saint-Louis bi ñu 130 mm déjà muy beaucoup. xam nga ne ndar euh, dëkk là la déjà muy problème ben bi ci des ñu ngi enregistré une station bi ñu am Bango 80 mm en à une heure de temps tu t'imagines 80 mm ñëwandoo en même temps une heure de temps mhm. donc là vraiment day day fax ba affaire yi dafay bëri ba rapidement mu créer inondation donc aspect taw bi ni muy tawe mooy intensité bi tawin bi aussi quantité de moom mooy mooy tellement que rapidement mu créé inondation ci yooyu donc mon moo tax dëkk yu vraiment at bi gis nañ ni record yi amna na Taïba Niassène Touba que ça soit c'est tout Saint-Louis cette année mhm. parce que yenen année quand même Saint-Louis était un peu épargné les foyers moo doon Touba la ak Dakar vite population yeeg ñu mel noonu mhm. keur Massar ak yoy alhamdoulillah ren keur Massar je pense que amna travaux yu bëri ñu def les populations sont un peu soulagées mhm. donc Touba moo doon problème bi donc Touba euh, le fait que ndox mi ni muy tay moom mooy ba pour ñu mën ko refouler xamna day jël day jël un peu de temps ouais. loolu lañ bëgg a ñëw topp sax parce que gis nañ le ministre de l' intérieur Antoine euh, Félix Abdoulaye jom demoon na ci euh, gox yooyu nga xam ne ci biir dëkk bi ci biir réew mi euh, am nañ taw yu takkoo takkoo ba mu jural leen ay mbënd wax nañ Touba wax nañ Saint-Louis waaye dañuy njëkkee rek Touba dem xool gannaaw ba fa ministre de l' intérieur demee yan kàddu la fa yëkkati ak lan rek lañ ko won ci mbënd mi lam fa jur comme jéeya. ci ministre de l'intérieur bimfi excès fi egsee dem na Ngélémou Tibassin ci bassin de rétention pour Rahman Antoine Félix Abdoulaye Jom, demne visité visiter ñaari béréb ci commune bu ministre de l'intérieur ginnaaw loolu it yëkkati na kàddu wax ni dal li jamp ba jamp moy génne ndox yi nga xamné duguna ci yenn béréb bi ci Touba Touba yagatul ñu amal fi bi waratu fi urgence mooy génne ndox mi ngir fexe ba ñëpp seen màggal yéwén ñu yegg ci màggalu jam euh, def ko jàmm def ko ci jam niñ ko daan defee at mu jot ndax màggal ku ne xam na ni moom sant yàlla la te safar buñ koy séntu wala mu teru xol yëpp dafay féex. <laughs> ci jàkkaarloo ak taskatu xibaar yi Antoine Diome wax na it lii nga xam ne nguur gi boobu ak léegi mi ngi koy def ngir fexe xeex lépp lu jëm ci wàllu mbënd mi ci biir capital du mouridisme. Maintenant, quand on est dans les travaux d'urgence, on voit qu'on doit avoir la capacité de pompage. Parce que 2800 m3 heure la donne pompée, nous est donc quand on parle avec les techniciens, on doit l'avoir. C'est pourquoi on l'a 2100 m3. On dit que c'est pas ça. Parce si on 2100 m3, ce qui a 2800 m3, on ne peut pas avoir la capacité looloo waral ñu yokkoon ci yeneen ñaari tuyau yoo xamante ni gis ngeen tuyau yi léegi boo leen xoolee ci bassin bi di ngeen gis tuyau yooyu laata màggal gi tàmbale naa xel li ba loolu tax mu soulagé woon ay population yu bëri. loolu ñu fi defoon daaw am na fi njeexital ci Kër Ñang waaye tamit am na njeexital diggante ndaamaato ak ngëlëmu. ministre de l'intérieur yëgle na itam ni daal li mu bëgg gouvernement bi bëgg ko mooy fexe dakkal lépp lu jëm ci wàlluk mbënd ci Touba naka noonu nag am na ay matukaay yoo xam ne nguur gi jël na ko. bokk na ci ay camion hydrocureur yoo xam ne indi nañ ko waaye it yokk capacité hydrocureur yi fexe it lii nga xam ne moo di bassin de captage bi ñaareel bi ñu yokk ko ba mu gën a mën a yaatu ci fii nga xam ni moo di kër kàbb li ñuy def mooy yokk capacité de pompage bi li ñuy def mooy fexe ba loolu di ñuy tuddee camion hydrocureur yónnee ko fi fi nga xamante ni buñ ko pompé duñu am fuñ ko sànni camion yi ñoo koy manq dem tuuri ko diggante démb ak léegi am na fukki camion ak juróom-ñett yoo xam ne jot nañ leen fee yónnee ndéewgul ñu tàmbali liggéey bi fële ca Kër Kàbb ñu ngi fay aménager benn zone boo xamante ni mat na quarante à soixante hectares boo xamante ni lu mel nii am pof di am daaru raxmaan waaye mu gën a yaatu gën a mën a am capacité dox bi loolu la ñuy euh, nekk di liggéey. taxawaayu ministre de l'intérieur jamono ji ak bi ci Touba mooy fexe nu mu gën a gaawe ñu génnee ndoxu taw yi ci dëkk bu sell bi. ginnaaw bi nga xamee ni ñu ngi dëgmal màggal gi xew-xewu diine la boo xam ni du yàgg ñu yegg si te bu boobaa ay junni junni nit ñu ngi leen xaarandiku ci Touba. Mame Moussa Niang moo ñu toogaloon euh, Touba jël ñu rek euh, visite bi nga xam ne ministre de l'intérieur moom la fa euh, defi woon docteur Ndiaye mooy li ñu doon wax. 130 mm. millimètres moo wàcc Touba keroog 19 août. Mm. daanaka moo méngoog li wàccoon Dakar rek keroog 5 mm. août. muy lu takku. Mhm. Je pense que c'est importante et que nous avons chaque fois bu intervenir sur le terrain Il quantité précipitation énorme et si mhm. surtout le temps bi la courbe, temps donc pour population il quantité bi des euh, ko mu problème donc nous wara comprendre rek vraiment période ces dernières années surtout quatre dernières années vraiment on a des précipitations yi vraiment dafa dayo la du Sénégal rek dëkk presque donc il faut vraiment en patience

gënee tàngal ndox mi donc day gën a yokkuwaat encore cycle bi donc loolu la ñu en train di gis ci dëkk yu bëri ah du dëkk fii rek euh, gis nañ Corée du Sud lu doy waar lu fa xewoon loo xam kenn mësu koo imaginer ay Chine ak yu noonu donc gis ci gox yooyu donc moom la ñuy gis suñu gox yi aussi muy am ñuy am ay précipitations yu fort yu dégg daaw xam ni dafa lié changement climatique te rapport GIEC bi defe naa mën nañ benn émission bu ñu ko présenté woon waxoon nañ ko ne vraiment borom xam-xam seen xel màcc yëpp ci mbirum changement climatique d' accord nañu ni que muy feu de am que muy tàngoor yi am muy les vagues de chaleur que muy inondation yi am ñu koy woowee les phénomènes extrêmes loo xam ni la dafa lënkaloo ak changement climatique donc mhm. loolu lu wër la mhm. alors colonel euh, Touba lañ jógee ak Mamadou Moussa Niang ak ministre de l' bi nga xam ne moo fa demoon ñu dégg ko mu ne dañoo war a yokk capacité pompage yi indi ay hydrocureur ba mu fa jóg ak léegi ndax mbir yaa ngi évoluer Oui, c'est vrai que y a une capacité pompage bi il faut souligner aussi qu'avant le pompage bi il y a également le plus important l'assainissement. L'assainissement, assainissement je crois que c'est en cours là le pompage également il y parce que c'est aussi mission tournée bi le renforcer notre capacité yu et puis il y avait des problèmes également à la suite de la visite euh, par rapport à le bassin Nous avons eu koy conseil de fu et le et pompage bi ça ça ça a repris donc euh, yokk nañu électropompe yi yokk nañu moto pompe en attendant peut-être euh, ñu gën a xuus ci ci ci ci màggal bi forage yi aussi parce qu'il faut ñu écréter il faut le dire am na taw buy jóge ci kaw euh, ndox muy jóge ci kaw loolu taw mi la mais y a également ndox nabbi, tuba nabbi nappe bi ku xam Touba bu baax xam nga ne nappe quand même on est déjà dayo day affleurer donc loolu pompage yi moo koy kii léegi taw bi su euh, pompage électropompe ak motopompe brigade nationale des sapeurs pompiers et des services ñëw également en appoint donc tout ça il faut quand même ben travail euh, bu maga, maga, maga, mag pour mën débarrasser Touba de ces de ces eaux. magal mm-hmm. gi danaka li ci dess barétul mm-hmm. ndax yéen a koy soralé tamit. wa ñong koy soralé bu baax loolu juste cadre planification bi la mm-hmm. sapeurs pompiers ñongi fofu ñongi déjà ñongi

Euh, ñoo ngi écrété donc euh, lépp loo xam ne ci liggéey sapeur pompier la bokk pour mën a soulager population yi euh, élément sapeur pompier ñoo ngi foofu. docteur Ngagne doon wax sànq ci wàllu changement climatique. Mhm. yaa ngi tudd ay COREC. Mhm. dëkk yi nga xam ne xëy na ñoom seen industrialisation moo gën a poussé ñun. suñ industrialisation. Mhm. lu tax daanaka li leen di dal di ñu dal te pourtant ñun. booy xoolee gox yu mel ne Touba. sori nañ industrialisation bu poussé. tout à fait xam nga atmosphère muy jaww ji amul frontière mhm. <laughs> donc mënoon ndam am jaww Mali jaww Corée jaww lepp da boy xol jaww ji yëpp ci aduna gi bo gilé 24 heures rek lu mouvement bo gis mën nako mën parcourir mhm. la preuve rek bo xolé ben cyclone des fois malgré que cyclone c'est plus compliqué mhm. mais des fois ay jours rek presque mu egg fi mu jëm mom motax lu xew ben bërëb bu da fay am jeexintal ci yeneen bërëb bi

nous ñoo souffrir donc il faut que def dara pour ñu dimbali donc réalité la au niveau mondial amène donc donc benn pays épargné donc il faut ñu nous fassions et ay matuwaay ba parce que inondation le complexe là comme nous l'avons fait du du taw bi rek am na assainissement la donc nous avons au niveau national avons benn comité national des inondations dirigé par le ministre de l'assainissement n'est-ce pas donc nous avons ñu réunir chaque fois de nous nan lañ mën ba aider population populations. ko mënul déclencher plan ORSEC pour gën a encore encore renforcer les moyens pour euh, pour les aider. Mhm, daanaka sikkima lakkandoo euh, gox yëpp a koy euh, jànkonteel mbënd mi wax nañ Dakar wax nañ sànq Touba waaye it Ndar gis nañ la fa xew dem sax ba am ku ci ñàkk bakkanam mm. ñu koy jaale ay mbokkam kon dañuy dem Saint-Louis fekk ji fa rek Dieynaba Dia xool ak moom tamit naka la fa mbënd mi demee ak ba tey visitu ministre de l'intérieur ginnaaw taw bu bëri bi wàccoon fii ci ajjuma bi passé ba kër yu bëree daal di ci taa ministre de l'intérieur ñëw na fii ngir saafante ak ñi nga xamante ne ñoom ñoo ci yàqule mu daal di weccoo ak ñoom xalaat ngir xool nu ñuy def ba ndimbal bi nga xamante ne nguur gi bëgg na leen ko indil mu gën a gaaw ci loolu nag am na loo xamante ne daañ leen ko defal bi ma ñëwee fii ci Ndar ba visité fi nga xamante ne mooy Jaminaar station ba fa nekk visité fi nga bassin binek Pikin Pikine 700 visité fi nga xamante ni moom mooy Sor Diagne euh, jeexalee fii ci Daaru li nga xamante ni lañ fi ko fi population mais jël ko tout de suite comme décision avec ñi nga xamante sapeur pompier ak ONAS mooy dañu war a yokk baral ni nga xamante ni moom la ñuy pompé moo tax ci saa dama ni fileeg Souba, amna yenen pompe yo xamanteni dinañ ko wat fi ci diwanu Ndar ngir fexe ba ndox mi nga xamante ni mi ngi ci kër yi wala nekk ci digg ci diggante kër yi ci mbedd yi ñu gën ko mën gaawal ngir euh, pomper ko mu dem ci dex gi wala mu dem ci géej gi. ministre Abdoulaye Antoine Félix Diome ak ñu mu àndal nag buñ fi ñëwee dem nañ ci bërëb yi nga xamante ne ndox yi jamono yi nangu na ko askan buñ fa fekk nag ñu daal di rafetlu doxalin nguur gi. nun dañuy sàkku ndimbal ku mën a ku mën a dimbali rek te yàlla tax biñ ko gisee nag dañu rafet lool lim def daf daf moom dafa dafa am solo daal ndax dafa am yu sew yu biir yoo xam ne ñun mu dëkk ci biir koñ rek ñoo ko xam. lu ko gën a yokk nag nit ñi dañuy dëkk ci yoonu ndox ba noppi itam napp bi dafa jege lool. ci loolu nag nguuru Sénégal ànd ak mairie bi jàppale askan bi ba wàññi leen seeni coono. pompe yi ngeen dëgg ñuy riir ci suñu ginnaaw daaw bi nga xamante ni mbir mi dem na ba tar. xam nañ ni Sénégal dafa am ay dëkk yoo xam ni dëkku ndox la waaye dafa am ay dëkk yoo xamante ni fi nit ñi dëkkee dafa nekk ay dëkkuwaay yoo xamante ni yoonu ndox la woon naka jekk léegi te niñ koy waxee ci olof ndox du fàtte yoonam boo dëkkee foo xamante ni yoonu ndox la woon wala dex la woon dex gi randu nga ñëw dëkk fa bu tawee ndox mi day ball su fekkente ni dem nañ tuuti rek ndox mi day tàmbalee ball ndax li ñuy wax ci tubaab napp bi dafay nekk loo xam ne dafa jege suuf si dugg bi muy dugg ci suuf si ci ndoxum taw mi du mën a jël lépp li nga xamante suuf si du mën a jël lépp li nga xamante ni jóge na ci kaw asamaan si ba nga xamante ni su tawee tuuti rek fépp day taa lool nag dafa am ay saafara yoo xamante ni dañ ko ci war a indi yi ñu ci war a indi yi gën a jàmp mooy pompe pompage boobu su fekkente ni tàmbali nañ ko ñu dem ci yenn gox yi ñu gis ni dañu sawar ci jàppale sapeur pompier yi dañ leen ciy gën a ñaax di leen wax ni mbir mi ñun ñëpp ko bokk muy état muy collectivité territoriale yi muy maire yi waaye tamit muy population yi nga xamante ni ñi ngi ci biir gox yi te ñoom xam nañ ko population yi xam nañ ko xam goo xamante ni bu ñu ñëwee dañuy yàkkamti waxtaan ak yow euh, weccoo ak yow li nga xamante ni moom lañ xalaat ni moom mooy saafara ngir gën a mën a woyofal ni nga xamante ni moom la ñuy dundee. ci visite bu mu amal fii ci commune bu Saint-Louis ministre bi ak ñu mu àndal dem nañu fi nga xamante ne moo di Njolofeen kër ndaw si nga xamante ne dafa ñàkk bakkanam ci taw yi mu daal di jébbal njabootam jaale nguuru Sénégal. kay koy euh, jaajëfal bu baax mom moom euh, euh, ba Dia togal ñu Saint-Louis colonel batay moy tourne bi nga xamne ministre de l'intérieur intérieur mi ngi ko doon def ci bi réew mi yaa ci won ci tourne bi lan nga gis yow Saint-Louis ak ndox mu takku mi ak liggéeyu sapeur pompier. donc euh, voilà li li li ma waxoon rek en fait visite bi euh lu taxone mu jog c'est un peu s'enquérir de la situation sur le terrain. euh il y a une zone surtout notamment les zones les plus impactées bu ñu demee Saint-Louis gis ngeen ko ci reportage c'est la situation qui est là je dis ay résultats quand même defoon nañ ko ci renforcer nañ capacité résultat amna, mais na ngeen xam le cycle pompage bi dafa xaw complexe on naa ko fi ci euh, c'est un peu itératif donc recommencement lay nekk fu mu ne nañ libérer quand même euh, beaucoup de sites mais gis ngeen c'est vrai que tawul lu mais démb ak tey quand même jot naa taw mais loolu quand même intégré dans ko hein. c'est vrai que nous avons Ndar euh, après ñi tegu dem Touba après Touba ñi continue par Durbel. le lendemain nous dem Joal après terminé par Mbour donc c'est le même scénario mm-hmm. et résultat day après mutawat, ben, les sapeurs-pompiers, comme je dis, intégrés mais on est sur place et prêt quand même à, refaire le même travail. Et tant que l'hivernage budget, on libérer tout euh, ensemble des sites sapeur pompier nañ nek fofu continuer liggéey bi. ndax sen dispositif bi ak sen ressources humaines yi doy pour yok capacité yi ministre bi di wax. waaw c'est vrai que euh, capacité du mas doy. Mhm. comme je le dis répète tout le temps sapeur pompier yi mënuñ fépp fa am ndox ñi tek fa euh, pompe tek fa euh, personnel. ba paré au delà de ça am na yu bari ay problème déversoir la donc lolu c'est pas possible. Et comme j'ai dit, on couvre l'ensemble du territoire national. Mais quand même, c'est une stratégie pour mener venir à bout. chaque fois que c'est possible, ça peut pomper, ça a jaré. Il y a quelques temps, y a une semaine il y a nañ résultat probant yu am. comme je dis, Tawatna, y a eu des sites libérés, mais il y yo des euh qui nañ encore pomper parce que c'est une zone yu est là comme je dis duñ pare ba mais quand même avec lu am stratégie ça nous permet quand même jusqu'à la fin de a des résultats probants résultats pour nous dire carrément il faut que taw arrête. Si nous boobaa suñu libérer ben, ben secteur nous xam ne duñ fa mais quand même résultats au quotidien ça se voit reportage on est également ba secteur la dellu je vais jël exemple une zone de captage Mais euh, maison est libéré nañ a une pompe modeste de 150 mm au delà pompe onassie. donc yooyu ay résultats la a un parc qui gis aussi résultats C'est un reportage yi wane na ko le euh, docteur Wachon, a dit qu'il foofu démarrer. c'est les premières pluies résultats il gis a euh, également dans le secteur nord euh, également côté mm, Matam Yoyu. Euh, gis nañu également résultat mais n'empêche dañuy intégrer chaque fois à amee ou bu metti aussi ce sera un recommencement mais là, quand même on est prêt parce que suñu une mooy soulager population la population. Amna solo euh, colonel Ange Michel Diatta euh, docteur Ousmane Ndiaye batay tey mm-hmm. bi Touba ne nga ñu né 130 millimètres mo fa wàcc mm-hmm. ndar bi nga xamné mom moy reportage bu mujj bi ci xayma ñi ngi ñi ngi ci ñaata millimètres fofu

fépp fu mu taw da koy indi biir ndar donc taw bi nekkoon rek ndar rek le concerné woon mais lépp ci bassin bi ci la concerné woon euh, moom mooy mbir mi donc euh, ce qui est important en tout cas nous, ni ñuy def moy la météo fexe accompagner les populations pour soulage population yi la donc en amont en général on essaie de faire des prévisions ay app chaque fois 24 heures avant comme ni ma laje sank rek des am ay prévisions mën a fexe ba moyens de communication yu ay réseaux sociaux n'est-ce pas télé comme ni koy def ak RTS ak lépp fexe ba wax nit ñi rek amna chance ñu am ay taw pour nit ñi mën préparer en général pour jur pour nit ñi nga xam ni ba nit ñi bañ personne perte ak yu mel non loolu li ñi def en amont en général si vous avez préparé action vous avez des information pour vraiment y a des probabilités de taw que vous opération wala vous mhm. bu une quantification comme ñu ko 130 pour ak les causes mhm. donc nous dañu réseau d'observation observation permettre ñu am ay savoir euh, chaque année comparer aussi li parce que si vous taw bi Sénégal fépp foo gis dafa excédentaire excédentaire mooy dafa dépassé loo xam moom la ñu yaakaar fépp Sénégal hmm. ba mu des ñaari côté mooy côté Podor lañ gis ni taw bi dafa manqué mu koy comparé ak lañ daan am ak côté Kédougou ñaari côté yooyu rek lañ gis ni dafa donc pour dire que ren moom fépp lañ am ay pluies yoo xam ni dafa exceptionnel donc loolu la Nous euh, comme ni ko aussi euh, lu am solo la sur la population Nous aussi on essaie de faire le maximum pour utiliser les meilleurs modèles possibles avec mhm. observation pour montrer que prévisions yoo xam ay app yoo xam population yi euh, souligner aussi que vraiment l'engagement la synergie bi ñu on est appuyé par le ministère de l'intérieur mhm. n'est-ce pas qui essaie d'augmenter la communication di def te je pense que commencé initiative légui di communiquer à chaque fois chaque matin pour gars yi mën xam taw yi ak a xam app yi ñu am solo pour nit ñi mën préparer mhm. parce que préparation defe na mooy di ëpp solo pour mën sauver les vies au mhm. moins mhm. après maintenant matériel beeg yoy comme ni ko waxee sera un peu difficile mais on essaye de de faire ce qu'on peut ba ci xayma gi ak ci walu comparaison yi batay euh gis nañ ne daanaka euh, wax nañ ko lim taw Dakar 130 mm mom la taw Touba mom la taw Saint-Louis euh, naka lañ def ba lool yëpp tomber voilà, tomber la rek tomber <laughs> wala ay gaaf à wala mhm. en général c'est très rare de trouver des trucs exactement égal mais xam nga sénégal une précipitation en c'est très rare de 200 mm Je côté les tournées bu exceptionnel ça veut dire dépasser les 100 mm parce que 50 mm moy sunu seuil bi ñuy bien sûr ça dépend Si vous ndox amna ba paré amé 20 mm ça dañ koy communiquer pour avez ñi mm. xam ndox 20 mm donc li ñu gis 130 mm taw Touba ak Saint-Louis dafa dafa tomber ñaari chiffres <laughs> égal mais en mm. général dañuy am ay 29 ay 60 mm millimètres ay 97 mm ay 80 mm la comme Saint-Louis bi mu tawé 130 ba paré trois jours ci ginnaw tawat na encore 50 mm il fait mettre les conditions un peu difficiles donc la fexé ba ba suivre di app taw bi problème bi nak moy taw bi dafay varier ba ëpp xam nga rek mën na taw fi ci RTS bo génné quelques mètres après du taw moom motax da fay très difficile mm. non seulement de prévoir ensuite estimer ko mom motax des fois vraiment jumtukaay yu xaral ni wara war pour mon comme ay radar mm. comme de pays niñ ko mm. comme ça bu taw bi di ñu mëna estimer exactement vitesse taw bi parce que vitesse taw mooy li ëpp solo. parce que météo des fois dinañ ne sapeur demee na taw mais ñoom li laaj mooy ñaata. Mm-hmm. est taw bu fort lay nekk wala mën a war bu ñàkk a fort mais loolu day am difficulté ñun pour ñu estimer exactement ñaata la parce que mm-hmm. dañu permettre ñu mën xam exactement ñaata lay taw te am alhamdulilah ñu ngi euh, collaborer ak yi pour essayer Sénégal au moins am radar. boo xam ni ne serait-ce de Dakar li ko wër pour mën essayer aider en attendant laa am les gros moyens pour mën couvrir tout le pays. Mhm. Euh, am na solo kon ba tey rek ñu topp euh, région yi nga xam ne euh, ndox mu bëri moo fa wàcc dem nañ Touba dem nañ Saint-Louis ñu jàll kon rek ba diwaanu Matam fekk fa Ibrahima Pa bi Diédhiou foofu nag taw na fa taw yu takku ba tax rek ministère développement communautaire daal di leen jébbal ay dund ak yu ni mel kon ñu seetaan loolu ak Ibrahima Pa bi ñëwum délégation bu gouvernement bi ci diwaanu maatam rawat na ci commune yu Ogo ak uroso gi tax nañu nemmeeku ji bu baax a baax jéye yi nga xamante ne taw bi def na ko ci diwaan bi ci Sinthiou Garba ak tamit Janjoli Tukulër ak Janjoli Bambara di ñaari dëkk yi nekk ci commune bu Ogo ak tamit ci commune bu gi daanaka fépp lañu nemmeeku ay yàqu-yàqu ay kër yu bari ñoo daanu ñu ci gëna a bëri si ban lañ koy tabaxé sant yalla yonent bi ci bëcëk la su fekkon nu guddi dama yor njabot du mëna bax baax ñu xëyee suba nak nag mu datal ndek ñi kër gi ñu gi fess rek ndox bi mu ngi wal rek mu ngi wal mu ko nak ma ni di ñew leen dimbali leen ma ne ah li du dugg li du dugg ci kër gi rek bala ni di ñew rek fekk dugg na ci neeg bi yépp suma lal bi ak suma bagage bi yépp dara génn wu mu ngi noonu léegi nak xam nga taxaw na bu yàgg. bâtiment bi daañu ñun ñu daw taxaw fee ci kii bi. vraiment c'est catastrophe jour de vraiment. guddi alxamis bi metti woon na lool ay kër yu bëri yu daanu rawatina si dëkk bi nga xam ne mooy janjooli tukuleur ak janjooli bambara. ñëwin bi délégation gouvernementale bi ñëw nag daanaka am na suñu solo lool. par euh, les situations des villages. donte am na nay kër yu bëri yu yàqu askan wi ñu ngi sant yàlla bu baax a baax ndaxte benn bakkan desu fa. loolu tax na tey ñu kontaan bu baax a baax si ñëwum délégation nguur gi ñu ne loolu am na solo lool délégation bi nag indi na dimbal chef de l'État muy li nga xamante ne ñoom ñëpp ñoo ko rafetlu. ñu ngi gërëm di sant président Macky Sall parce que wane na encore une fois que dafa jege population bi wane na encore une fois Euh, coono sénégalais yi mbëbët sénégalais yi loolu moo ko yitteel moo ko tax a jóg moo tax lu mel ni bu amee mu yónni ay mu ay ndawam ay nit yu ko sës sës rëkk mu yónni leen fii pour wane encore une fois que bu doon sago moom mooy teew. président Macky Sall nee nañu foofu mu mënul yegg si nañ ko fi yegg si ñu yegg see ñu masul ko population bi mu xamal population bi tamit mu ngi seen wet guddi mu ngi seen wet bëccëg waaye aussi. lépp loo xam ne daf ko war a def pour ñu am ndëgërlaay bu ñu nekkee ci seeni gox yi dina ci def kéemtalaay kàttanam moo tax bi ñu ñëw mu jox ñu yóbbal lu wa lu mel ne ay dund parce que am na ñoo xam ne seen dund yëpp yàqu pour ñoo ñu noonu ñu man cee jëriñu mu jox ñu aussi ay matériaux de construction. ñi nga xamante ne jot nañ seen wàll kontante rek lañu am ñu ne dimbal bi amal na leen solo lool. commencé na dal tuuti ñu ngi sant yàlla sant kii président ak kii Moussa Bokar ak ministre parce que ministre ñëw na xool nañu. mu ne xolam tey sedd xol yëpp sedd na tey. jox nañ ma kii ceeb ak diw ak kii saabu ak kii suukar. dund bi yëpp dafa yàqu woon fu ñu doon yëpp dafa yàqu waaye tey nag suñu xel commencé na dal tuuti. fii si diwaanu Matam lu ñu nemmeeku mooy fan yi weesu taw bi daanaka bëri na lool. ba tax ay kër yu bëri di daanu waaye bu ñu sukkandikoo waa météo ñu ne taw boobu dina dem ba si weeru septembre ba tax nag ñu war a jël ay motukaay war fexe ba wàññi bu baax a baax jéeye yooyu lee ndaxte phénomène inondation nekk na lu sonal askan wi jamono bi Ibrahima Pa bi Jeeju la woon euh, Matam ak taw yu takku yafa wàcc rek ak euh, ndimbal gi nga xam ne nguur gi yóbbul na ko askanu Matam docteur njaa ñu dégg Ibrahima Pa bi Jeeju wax ko ci reportage bi taw yi Matam daanaka jeexagul. non jeexagul taw yi jeexagul parce que fi ñu toll xam nga boo xool télé sax dañu naan li ñuy montré chaque fois fit benn ligne bu ñu wane. wane fi taw tool toll taw tey ñu ngi ci Mauritanie boo xoolee ba Nouadhibou ñu ngi ay am ay taw. donc taw yang ci ca kaw kaw donc ça veut dire que lepp li ci suuf Nouadhibou ba ci souf lepp war nañ mëna a am taw fi ba début septembre mi septembre donc moom moo tax taw yi vraiment ñu ngi saison des pluies moo tax même prévision yi difficile parce que chaque fois mëna taw xam nga yenn saa yi boo dawal sax rek jéeg-jéeg boo jaaree fi muy sibisal et cetera mooy ni vraiment ñu ci xiin taw ñàkk xiin taw comme ñu wax mm-hmm. xiin taw xiin pour xiin mu taw mm-hmm. donc ci loolu lañ nekk donc vraiment temps yi moom ñu ci problème mu précipitation yi li ma bëgg a ajouter aussi moy ci zone yi nañ xala aussi le fleuve est en train de déborder mm-hmm. xam nga ñu ngi jot ben qui communication bu DGPRE bu ñuy wax ni à Matam bi ñu koy mesurer mu mm. huit mètres voilà huit mètres mm. donc loolu jege la te ñu ngi xaaraat ay taw encore donc mm. mooy wan vraiment am na beneen phénomène encore bu ñu aussi euh, mën a xel aussi ci loolu mooy mais bu répondre à question rek saison bi jeexagul ñu ngi ba léegi saison te comme ni ma la ko semaine prochaine ñu ngi xalaat amaat encore ñaari événement au moins euh, taw yoo xam ni dina am incha allah mm-hmm. euh, Euh, danaka fepp tawando fepp tawando Dakar ak euh, région yi euh, ndax Matam bi nga xam fi lañ jógee Touba Saint-Louis bi ñu brigade sapeur pompier pompier yi nekk ci zone bobu rek ñam ñoy gérer gox bobu wala da ngay leen di renforcer. waaw amna déjà pompier yu nekk sur site. Mhm. ñom ñoy gérer d'abord localement léegi suñu débordé. Euh, am des ci patch bu gën a important xam nga dafa am compagnie bi d' compagnie sous-débordée, day am renfort pour secteurs qui sont moins impactés mm-hmm. maintenant moyens yi ces moyens seen moyens d'abord, localement y moyens des yu uniques à Dakar y a aussi comme nous ñu dit, des xam dañ koy pour éventuellement se amee yenn jayo yi réserve stratégique mm-hmm. donc chaque fois y a quelque chose ci yooyu des ñuy pour renforcer. renforcer il donc a une organisation telle que euh, d'abord au niveau unité d'abord de base bi suñ nous avons nañ fu ñu nous avons groupement nous avons préserver des personnels ñu dem renforcer Ce euh, qui Dakar par exemple je donne l'exemple de Dakar nous avons 129 mm, millimètres yi am éléments de groupement pour nous renforcer donc une centaine d'éléments nous avons fait ba léegi parce que comme je dis les pompes restent sur place tant que on s'attend avec les prévisions de la météo à que d'un moment à l'autre, mm. et <clears throat> ces éléments sont là, donc depuis Bobou, pour renforcer les personnels. Le mm. matériel, le EP solo, parce que matériel, d'abord, il est à Dakar, il dispatché ko chaque fois qu'il y a un événement particulier renforce le matériel bi d'ailleurs Touba commence à renforcer en prévision Magal bi mhm. et à on aussi on fera la même chose et chaque fois qu'il y aura un événement important comme Matam Matam généralement y a am précipitation yoyu mais bu mu y am nay moyens yu jóge fi dem ba mhm. également dengue, monsieur le ministre vous ñu dar instruction yu mu joxé juste après euh, envoyé nañ foofu ay électropompe yu am doole notamment pour mën a secourir waa waa Daaru mhm. euh, su kanamee sànq dinañ dem Joal ba tey ministre bi moo fa demoon xool euh, sinistre yi waaye laata loolu euh, monsieur Ndiaye ñu ñu jeexal balaa ñooy dalal su naataango Abdou Wade Joal la ñuy waaj a dem foofu it liñ gis ndar moo fa nekk wala intensité bi xawoon na yemamaay foofu. déedéet xawul yemamaay xam nga ndar booy xool ñaar ñetti pluie forte rek lañ am. Mhm. mais euh, boo xoolee côte bi nga commencé Fatick.

des précipitations très importantes. Donc le sud en général, Boru Cap, Boru il soit de très fortes pluies, mais en général, zone yooyu sorte pluie pluies ont beaucoup d'impact. En général c'est vraiment la côte à surveiller donc nous, chaque fois dañuy surveiller commencé Cap Skirring ba jëm mhm. n'est-ce pas en passant par Jawal. donc effectivement il jarul xeeb. dëkk yoo xam dañuy jot ndox yu bëree bëree bëri surtout yuy tegaloo peut-être pas ampleur ay centaine de millimètres mm-hmm. mais nañu ay cinquante yenn saa yi deux jours après ñu jot quatre vingt donc vraiment mbiri daal boo xool fépp la daal ret dafa xaw masala kon bu ñuy jeexal docteur Ousmane Ndiaye mm-hmm. euh, ci nawet bi ak liñ mën a xaarandi mm-hmm. ci euh, ci taw ba tey lan lañ mën a jàpp ci li des ci nawet bi waaw li ñu mën a jàpp ci def nawet bi mooy en général boo xoolee Sénégal Nous avons au nord lay en général fin septembre boo xoolee mhm. ay Podor Matam Saint-Louis yëpp nawet bi day arrêté après ba commencé wàcc mhm. ñëw au niveau central Dakar ak en général descendre léegi nag at yi bokkal am na at ne des fois nawet bi day mais en général li ñu xalaat le mois de septembre déjà taw yi ne mi septembre mi mhm. septembre nag la fit bi commencé di watch au sud du Yakar dem ba fin septembre début octobre ñu ngi entré de faire des prévisions te xam naa quelques fan nañ ko li gëna am solo moy li xew semaine parce que on a deux forts euh, événements deux forts événements yi nga xam ni mm. ñaari événements yu takku dal yu taw yo xamni ni yaakaar nañ intérêt Sénégal surtout bi jëm jeudi vendredi premier bi mooy commencé lundi jàpp mardi ba yi dess commencé jeudi jàpp vendredi moy ñaar yi nga xamni mom lañuy la ñuy fan lay fan lay xewee fan lay xewee day commencé toujours vers l'est ay Matam Bakel en général moy nga xamni zone yi xam ñuy gën a recevoir taw mhm. mais xam nga zone yi en général da euh, dafay euh, ruisseler dem ci fleuve bi après bu paré ñeu au sud ay Kolda Ziguinchor lolu mais bu jeudi mom moom yaakaar nañu intéressé tous les pays mhm. donc bu lundi bi déjà on est en train de surveiller ça pour voir nu muy évoluer mais bu jeudi mom am nañ ay signaux assez clairs pour war ni na intéresser lépp jeudi bi jeudi bi incha kon ñu waaj ko ñu waaj ko incha jërëjëf docteur Ousmane Ndiaye kontaan nañ yow yaay directeur de l'exploitation de la météo. Mm. ñu lay gërëm bu baax ci wuy si bi. merci beaucoup Arame merci beaucoup Arame di signal rek ni. Mm-hmm. Euh, vraiment suñu natango yu bëree bëri parce que comme ni ko ministre waxee rek. Mm-hmm. li ñu soxal rek moy fexé ba population yi ñu soulager leen. Mm-hmm. donc ñun ñëpp dañuy travailler en concert que ça soit APIX que ça soit ñëpp fexé ba ba aider population parce que inondation dafa am facette yu bëree bëree bëri donc lañuy fexé rek ba travailler en synergie di lonkolo di waxtaan lepp am nañ groupe WhatsApp ak lepp di waxtaan rien que rek bu dara xewé rek ñu mëna jël ay way ñu aider ñu ministère yoy appuyé ñu ba telle sorte ko ñu mën a def li ñu a def. ñu lay gërëmaat bu baax docteur Ousmane Ndiaye dañuy ñëw dalal suñu naataango Abdou Wade waaye laata loolu dañuy ànd ak moom rek ba Joal ndax demoon na fa topp ba tey tant que ministre de l'intérieur ak euh, visite bi nga xam ne amal na ko gannaaw taw yu takk yi. Joal quartier Daaru Salaam ku gis lu ne mel xam ni ñi fi yeewoo sonn nañ loolu ci mbënd mi. ci li ma xàmmee ak as bi ma fi ñëwee léegi def na ñaar fukki at. ci li rek la ñuy dund ñoo gis ben changement bo xamanteni ni bu ñu wax la ci gox bi miti na lol ndax ñun dañ daan tok fi bu ñuy taal añ sax la daan jël diko tek di jël sama gaz diko ci tek wala ma boyal sama fourné di ci taal ndax awma ma fu ma mat ndax kër gu fess ak mbedd yu fess yoy day indi febar ta ndox mi day téye yo saa bu tawee fii kër yi ngay gis ni kèn du mëna tok ci mbéd yi pour ñak képp lañ fi dunde mais du lénen li moom képp ko xamante ni si yaa fi dund muy goor muy mag muy ndaw ñak pexe do nga fi dunde yaangi dégg mais dunde wo fi lu la neex ginaaw taw yu metti yi fi amon daru salam doon na gox bo xamni lepp luy ndox kaw yu jugé ci dëkk yu ko fi lañuy dalé ci ci xex ngi ci ak moom ndax euh, nit na da nga toll foo xëy ne joboot nga doo mën a jékki-jékki rek buub say bagage ci noonu dangay ngay deemer de euh, seet bagage yi nga xëy ne tooyuñu nga nga nga def leen à waaye man fanaan naa ci ndox ba tey si seet si nemmeeku bi mu amaloon ci biir gox bi jëwriñ bi ñu dénk biir réew mi jot naa nemmeeku ñu jéye ji toll te moo ngi woo bépp acteur ñu dajale seen doole ngir mën a jëriñ askan wi li ñu fi seetlu mooy que ni am na ay gox yoo xamante ni jànkonte nañ ak jafe-jafe yi loolu nag bañ fa yeggee nemmeeku ko fi ñu demal suñu bopp ak fa ñu jotule yegg sax ñu indil ñu xibaar yi li ci war ci saasi mooy indil leen saafara yi saafara yooyu nag mi ngi jaar ci gën a yokk doole ji nga xamante ni ñu ngi koy pompe ndox mi waaye tamit fi nga xamante ni bu ñu pompe amuñu fuñ ko sotti ñu indil leen camion yu mag yooyu ñuy wax hydrocureur ngir ñu manq ko yóbbu ko fi nga xamante ni fa lañ ko war a tuuri fii ci Mbour tamit mën na bi fi amoon jot na fee bàyyi ay tepp-tepp comme fii ci goxu ONCAD bi nga xam ni ñëpp ñi fay yeewoo ñoo ngi joxañ baaraam station de pompage bi. ay jamono ci ginnaaw avant tali bi di fi jaar mosuñu am problème ndox ndox mi day ñëw suuf si jël ko sinon mu génn pont bi dem ñëpp nekk ci jàmm mais depuis bi fi defee tali bi def fi canalisation bi ci lañ nekk ci ay jafe-jafe. donc lii nag bi ñu ko fi doog a installé bi fi nekkoon doon na évacuer ndox mi vite fait mais dañ ñu dafa lakk donc benn groupe lañ fi indi buy taw ñun ñëpp ñu génn. nit ñi dañu seetaan affaire yi métti trop. bu fekkente ni dafa am ay jafé jafé dañ koy xayma xol lan la mengol limu mengol nak ñu yeggé ko président de la république mu joxé dogal ñi nga xamni ñom ñoy moy suñu collègue suñu nattango Abdoulaye Daouda Diallo yor ministre des finances ministère des finances euh, suñu dajalé li nga xamante ni moom la ñu soxla ñu jébbal ñu ko ñu dal di koy woyle fépp fu nit soxla dara wala fépp foo xamante ni gox am na lu mu fa soxla ñu jublu ci loolu. ay fan a ngi nii ñii di waa sapeur pompier ñoo ngi doxal seeni liggéey ngir mën a dimbali gox bi ba ñu génn ci ndox mi. waaye nag askan wi lu ñu gën a yaakaar mooy am système d'assainissement bu am doole ngir gën a mën a xeex mbënd mi. Joal la woon ak euh, Mbour euh, sun euh, naataango Abdou Wade àndoon ak ministre de l' intérieur Abdou moom la ñuy dalal ci plateau bi ñu lay nuyu bu baax Abdou. Aram maa ngi lay fay di nuyu colonel Ange. yaa àndoon ak ministre de l' intérieur ci tournée bi côté Mbour ak côté Joal. lan lañ mën a jàpp ci format visite ministre de l' intérieur bi naka la fa demee diggante moom ak askan wi. waaw tournée bi ñoo ngi tàmbalee si Joal si quartier Darou Salaam quartier Darou Salaam nag bi ñu fa demee ndox mu bëri bu takku lañ fa fekk. Euh, li koy expliqué nag mooy kàcc daaru salaam dafa nekk benn point ba ndax gox yi ko séq mën nañ ni kàcc daaru salaam moo si gën a suufee mm. léegi loolu waral na même su tawee ndox mi fekkee jot naa dem tout as tuut sax mais dangay ngay seetlu ni 30 euh, minutes après rek maanaam mën nañ ni foofu yëpp day inondé ndax da ko bi ñu demee daanaka dex lañ fa gis waaye gis nañu tamit euh, système de pompage bu sapeur pompier aussi moo nga fa ngir mën a jëlee askan bi ci ndox mi mais nag aussi gis nañ ni population bi jaaxle nañ jaaxle nañ ndax lan ndax euh, ndox mi moo ngi bëgg a yàgg parce que maire bi ñu gis sax nee na moom depuis 20 ans moo ngi dund quartier Daaru Salaam mais euh, amagu ci saafara ndax dañoo obligé sax moom day jël table teg jël fourneau jël gazam teg pour te dire que mm bon, la population est en train peut-être euh, bon, de s'adapter avec ou bien de faire avec Les nag loolu ci loolu euh, tamit jotoon nañ waxtaan ak ministre bi waxtaan nañ ak moom waxtaan nañ ko seen njàqare te ministre bi déglu na leen tamit te bu leen dégloo aussi moom dina gën a renforcer dispositif bi ba pare gën leen a jox matériel pour ndox mi gën a dem té ci walum dispositif bobu aussi euh amna benn moment bo xamni ni euh, pompage bi day taxaw parce que canalisation bi day fees te su feesee dañuy obligé bay bu mu dem après ñu soog a reprendre dispositif bi mm-hmm. wa loolu lañ jëlé euh, Joal après c'est lañ dem Mbour mm-hmm amna solo Abdou ci état bu Joal bi colonel ba tey ma fàttali ne yaa ngi ak ministre de l'Intérieur. ci tourne bi euh, en tant que euh, sapeur pompier ngeen fekk fa ay ay ay pompier tamit yu nek ci liguey bi lan ngeen japp ci jafé jafé yi nga xamné mom moom lañ jànkonteel fofu ci Joal. waaw Joal déjà ko xam Joal num bindé nga xamné ne ndox baa juste à côté donc problème nab déjà moy posé wu so ci bolé pour certains quartiers nga gis né quartier yi. Euh, dafa notamment quartier bu ñu gis léegi ay également donc nga avons une idée déjà sur la problématique des trucs donc boobu problème la Benen bi également bu sa sapeur-pompier di di jonkonteel au-delà du déversoir am déversoir bu mag mais problématique bi mooy da ngay traverser tali bi donc soo c'est déjà on est obligé bënn tali bi comme ça tu es di mën a jaar ci parce que yoon Bob quand même moom moo lay yóbbu ba ba ba ba euh, Joal donc lolo aussi ñoo ngi ci liggéey pour bannir encore Talibi, pour renforcer renforcer capacité donc problématique Joal loolu problème traversé parce que ndox il fa nga yobu foo ko yóbbu dañ ko yóbbu ci ci ci géej fofu et fa nga traverser également problème bafon yoyu. soit tu ci boolee loolu aussi problème bi et c'est un problème global problème assainissement ah, on est obligé donc pompier yi nek ñoy suppléer loolu lépp donc ñaari problème

maam mbedd suuf loon léegi su tawee ndox mi day jàll ci canalisation bi dem mais nag bi ñu fay ndettali bi boobu ba léegi nag dañoo seetlu léegi ndox mi su ñëwee station de pompage lay jaar pour mën a dem mais nee nañ station de pompage yi dafa amoon ay jafe-jafe moo tax munu moon pomper ndox mi léegi nak lolou mo lay indil euh, ki bi mo lay indil jàng kii euh, manam mën ni jafé jafé yooyu légui nak lolou lañ wax pour ñu juk ci outil pexé wala sinon kon ñu reprendre l'ancienne méthode moy lan moy euh, canal bi fa nekkoon ma ñu fexé bu bëdd ko comme ça mu jéggi tali bi dem. Mhm. waaw loolu aspect technique la de colonel yéen lu ngeen ci xalat waaw aspect assez technique le dafa amone comme il a dit ben station il faut quand même le dire machine mo fay nekk. Euh, c'est vrai que Promoville ville installé et je crois que ça a donné de bons résultats bu paan bi amee fa la problème yi tàmbalee ñu signalé ñu ko donc ça pomper pomper ñëw nañ point, point soo gisee am nañ sa pour pomper. teg fa une pompe le temps que nous réparer. maintenant entre temps y a des désagréments mais si vous fa jaaree nga ni avec quand même les pompes que ça pomper, ndox bi dem donc je suppose que euh, c'est en réparation mais si sapeur pompier yaa ngi foofu si c'est réparé ñun ñu delluwaat suñu base wala dem investir au feneen et su boobaa y aura moins de problème. Mhm. que problématique bi à ce niveau fofu loolu la woon. kon euh, xamna ñu jeexal rek parce que émission bi li ñu joxone ci waxtu jeex na euh dañuy gis ci reportage yi wane yépp mhm. fi suñ caméraman yi dem yépp fi suñ mhm. reporter yi dem yépp dañuy gis né askan wi tamit dañuy dañuy japp ci liggéey bi. dañuy jàppale sapeur pompier ci liggéey bi. naka ngeen di lëkkaloo ak askan wi waaw kooku dañ leen di quand même euh, je dirais pas félicité mais liggéey bi ñun ñoo ko bokk ñun ak ñoom sapeur pompier askan bi moo tax c'est-à-dire que da ngay jógee sa caserne da ngay jógee sa koñ dem ji wàllu ji donc euh, généralement lëkkaloo bu baax na am yenn secteurs yi sax quasiment dañuy jox foofu ay ay bërëb yoo xam ne sapeur pompier fa lay nekk comme des fa la ñuy généralement parce qu'on est sur le terrain mm. H24 quand même muy taw muy naaj muy Noël muy Pâques

Euh, Sous les dañuy établir ces populations sont avec nous d'ailleurs y a problème qui xam ne sapeurs-pompiers ñoo koy ñoo koy régler genre euh, arbitrage dañuy def supposons quartier notamment Daw, Kermassar. Massar quartier bu nekk da ngay de gagner des fois bassin est day parce que bassin est aussi mënuñ donc il ku que soo bëggee forcer nga gagner sa ndox xam nga des fois ñun nos pompes sont à l'arrêt parce que bassin est day le déversoir bi day on est obligé de dire à chacun ku est... mais aussi population dañ koy comprendre quoi que ci ndox bi la nek dañ koy comprendre déggal ñu et ñi xamné ne liggéey bi benn la et c'est surtout ñoom ñoo ko bokk et c'est à leur profit fondamentalement Amna solo colonel Ange Michel Diatta chef euh, de la chaîne emploi ak euh, opération bu brigade nationale sapeur pompier ñu gërëm la bu baax colonel maa ngi leen di fay di leen remercier encore euh, ci kii bi di remercier également monsieur Wade ma tuddee monsieur Inondation. <laughs> monsieur Inondation Abdou Wade moom moo ñuy euh, toppal liggéeyu plan Orsec ci terrain bi Abdou Wade gërëm nañ la bu baax. maa ngi lay gërëm yow tamit euh, Aram parce que tamit di fàttali ne émission bi aussi li ko tax a jóg mooy ñu fexe ba waxtaanee loo xam ne tey maam ay ay njëriñ mën na cee bale. Mm-hmm. ngir gën a mën a waaw servir askan wi. jërëjëf Abdou gërëm nañ bu baax tamit kii di docteur Ousmane Ndiaye.